ñuy sant nag mboolem presse départementale bi yëpp ak presse régionale bi fu ñu mën a bàyyi ko eh, ci li nga xam ne mooy liggéey bi tey jii mooy talaata doonoon séntu bu njëkk weer yu feeñut àllarba mooy doon fanweeri fan alxemes mooy benn fan ci weeru safar kon gaawu dimanche mooy war a nekk màggalu Touba màggalu Touba dibéer lay tolloon ren ji incha allahu rabbi di 26 eh, septembre le 26 septembre incha allahu rabbi mooy doon bisub màggalu Touba yàlla na ci yàlla yóbbu te yombalal ñu luñ sant lee sëñ Touba yàlla te lépp luñ ci def yàlla na ko sëñ tubaa gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam jërëjëf kon sëñ Fallou Galass si